Fat gi nga fat ne faat gu ñaaw gi nga xam ne nañ ko suñu rak suñu militante di Mariama Sagna ñu delu di jale ay mbokkam ay waajuram borom këram doomam waaye di jale it wa parti bi rawati rawatina jigenu parti bi ndax daf ci am ñoo hamne ne tey mbir mi daf leen def psychose am na ci ñoo xam ne sax jël ay psychologue yu leen suivre ndax keroog bu ñu leen wooyee gendarmerie ne leen ñëw leen euh, xàmme ñëw leen xàmme ñu ñu jàpp ba wax ndax ñoom la dañoo ñëw rek ñu boole leen ak ñooñu directement amul benn kiiraay bu ñu teg seen diggante loolu nag doon choc ak jigéen nu mu sensibiliser ñu jóge ci jàpp ni ñooñu bis bu ñu leen bàyyee te xàmme nañ seen i kanam dinañ leen wër fu ñu munti nekk pour faagaagal leen di ma sew sénégalais yëpp ndax ñëpp a naqarlu mbir mi ñi ko naqarlu daal ñaar wala ñett la parce que su dëj amee nit ñi nekk ci naqar ab nit war a mun a taxaw moom di ci wax wax ju ñaaw joo xam ne sénégalais yëpp dégg nañ ko damay jàpp ni euh, kooku war nañoo xoolaat nitéem waaye Sénégal yëpp a naqaru li xew ndax Sénégal réewu yërmande la Sénégal xamuñu fi violence xamuñu ko woon li ñuy gis léegi daf ñoo war a tiital ñun ñëpp di daal di jaajëfal waa gendarmerie ci liggéey bu rafet bi ñu def ak ni ñu gaawee ba fexe ñi mu concerné ñu teg ci seen loxo ñu teg loxo si ñoom bëgguñu woon na gaaw wax ci mbir mi tànk dëj bi mu nga ci woon ndax topp nañ ci gunge euh, famille bi fekkee ba autopsie bi jeex ñu fekkee levée du corps bi gunge ko ba Casamance fekkee fu ñu ko jullee gunge ko ba ca armeel ya denc ko ñu doog a dellu si moo tax boobu ba léegi kenn dégguñu si ñu ne teg rek waaye dinañu ñaawlu taxawaayu parquet ci dossier bi ndax waa parquet gis nañ gaaw gi nga xam ne procureur gaaw na koo génn wax te ñëpp xam nañ ni procureur dañ koy wax waxloo ndax procureur mu ngi dépendre ci procureur général moo xam ne moom ministre de la justice moo koy diggal te ministre la justice moom Macky Sall moo koy digal kon procureur su waxee rek dañ ko waxloo waaye gis nañu nu mu gaawantoo wax ci mbir mi naam sax lu war a nekk la ndax loolu la yoon wax léegi bu dara amee procureur bu ñu demee ba avancé ci enquête bi war naa mun a wax leeral nit ñi waaye kii dañoo jotul avancé ci enquête bi ñaari fan lañ ci def ci jàpp gi kenn lañu ñaar lañu jot a jàpp waaye ki ñu ku ñu ku ñu wax ni moom moo boom Mariama Sagna moom moo ko moo def ñaawteef bi moom jàppaguñu ko woon ba yéen ñëpp dégg ngeen ni démb ci guddi lañ ko jàpp kon ci anam googu lan moo waraloon procureur di gaawantu di génn ñu fàttali ko ni ci semaine bi ko jiitu am na ab douanier boo xam ne fekk nañ ko ci otoom ñu boom ko waaye déggu leen procureur génn te ci même quartier bi la mu gaawantu génn ba pare ci loo xam ne ki ko def jàppaguñu ko enquête guñ ko juge d'instruction saisiraguñ ko mom mu gaawantu nan mbir mu du mbirum politique dal di écarter li ñi wax mobile politique loolu di lu doyo doyo war ñu japp ni mënuñoo rafetlu taxaway procureur ci loolu té ni ñu bëgg orienter sénégalais ci benn côté rek dal suñu xel surtout ci jamono ji nga xamné bis bu ne ngeen dégg ñu jël ay wax yu ñaawa ñaawa ñaaw tek ko ci ndodd bis bu ne ngeen dégg ñu menacer ñu ba tey ci mujj dégg ngeen ñuy ku dem ba di menacer né nañ ñu ray am na loo xam ne xel mun na cee tey ndax ñu organiser meeting bu réussir moom mu bokk ci ñi ko gënoon a suuxat teguñu ci une heure ñu ne fekk nañ ko ñu boom ko newuñu looloo tax ñu boom ko de waaye mënuñu koo dàq tànk enquête bi matul moo tax lan moo waral procureur di gaawantu di tëb naan dañuy écarter lii wala dañuy écarter li mu def sax dafa violer secret de l'instruction te loolu jaaduwul ci réew mu mel ni Sénégal ñu koy naqarlu di ko ñaawlu di wax nag képp kuy yëngatu ci mbirum justice ñii ma togal ni ñaar ñi avocat lañu waye ba ci ñaaw nga xamné magistrat lañu ci ni ñom nañ leen ñu ngi leen di ñaan comme suñu waxé dara ci justice ñepp jóg wax waye bu justice di doxé ci no xamné du anam gu rafet na ci nit ñi di wax parce que non lañuy ñuy justice bi di wax ni procureur jamono joju muy wax moom ci bopam ma nga naan ki de kii ndeyu mbir mi ki ñu jàpp ni mooy ndeyu mbir mi li tubaab naan présumé ñoo ngi ko ñoo ngi ko fooge Kaolack booru Kaolack ci enquête boo xam ne ñu ngi bëgg a jàpp nit nga gaawantu def conférence presse joxe turu nit ki joxe fan la nekk amaana sax su defuloon loolu jàpp nañu waaja bu yàgg loolu naka la ko mën a defee mu dellu si ne mbir mi du meurtre assassinat la mooy du loo xam ne lu bett ñëpp la waaye lu ñu préparé la lu ay nit euh, waajal la daa di teg seeni pexe pour def loolu waaw loolu su amee loolu la tubaab di wax assassinat bokkul ak meurtre kon moom dafa waroon tey ba enquête bi gën a avancé kon ñu ngi ñaaw lu taxawaayu procureur ci noonu mu ko doxalee ñuy wax ni dégg ngeen nit ay kilifa yu bokk ci Macky ay kilifa yoo xam ne ci Macky Sall la bokk daal di jóg ñoom wax ni wax ñaari wax yu rëy rëy yoo xam ne réew mu mu amoon su doon justice lañu am dëgg dëgg dëgg ñooñu waroon nañ leen woolu bu yàgg kenn ki jóg na taxaw ne ndaw sa fekk nañ fa xaalis bu bëree bëree bëree bëri muy ab wax goo xam ne du dëgg ndax lañ fa fekk ña doon def enquête bi rek ñoo ko mën a wax te ci PV gendarmerie lay nekk su ñoo wax loolu benn waaye ñaareel ba li gën a garaaw mooy su dee loolu am na te ka daw moo yor xaalis boobu comme su dee xaalis bi am na xanaa moom dafa dafa doon jokkoo kooku di wax ak moom ndax moom moo yónni kooku kon loolu ca saase la ko procureur waroon woo te defu ko ñaareel bi mooy keneen ci ku nekk ci nguur gi ñëw taxaw ne ndaw si ko moom xam nañ ko mom Ousmane Sonko moko bom koku dañ ko waroon wo ci sasa waye dañu ne ci rew mo xamne bo ande ak Macky Sall ande ak Macky Sall la neex waxal la neex defal gis nañ fi ño xamne ay ay milliards lañu lañu lañu toxal lañu toxal ñu jappaleen fi ci ay rapport tay ñi ngi ni ànd ak Macky di gundandat di organiser ay meeting gis nañ fi ñu wax ay njombe yo xamne tay rek nit wax wax na ba nañu assassiner Ousmane Sonko dara du ci mujj parce que ci Sall la waaye ku fi opposition waxuma la sax nga wax waaye soo juumee ba am lu rëcc sa làmmiñ rek ñu gaawante nag ne nañ ko tëj nañ ko pexeel nañ ko faagaagal réew muy doxee noonu mënul dem ñuy wax nag ci lii ngeen gis ni yëpp nag bu leen jàpp ni hasard la ay fani fan a ngi nii wala ay weeri weer te ñoo ngi koy defee ci fi gën a kawe ci nguur gi suba gu jot suñu togué ñu ngay utiliser renseignement généraux yi ngay utiliser tous les services de l'État ñu ngay dem ci administration di enquête fu né ñu fay dem lenn rek mo leen tax a naka lañuy def ba pexel Ousmane Sonko naka lañuy def ba Ousmane Sonko balaa élection présidentielle ñu duggal ko ci kasso bi suba bo ngoon jot ci lool lañ nek comme lot nañu nak ci dem top sama carrière dem ci entreprise yi mo mësa vérifier dem ci nit ñi fu ne ñu dem naan est-ce que jël na fi xaalis wala la fu ñu dem ñu ne leen kooku mosuñoo laaj fukki dërëm léegi lii moo leen dese nu ñuy fexe ba sosal ma nu ñuy fexe ba am fu ñu jaar pour pour pour pour kii lii ñuy wax nii naan ay xaalis fekk nañ ko faak ñii naan jihadis ak ñii la lépp ci ab complot la boo xam ne ñun ñu ngi xool ni sañ nañu fexe ba am lu ñu dugal suñu biir kër moo xam drogue la moo xam xaalis la moo xam fexe ba yebal nit mu dugal fa ëllëg ñu yónni ñu gaawantu yónni euh, alkaati yi ñu ñëw ne fekk nañu lii ci kër Ousmane Sonko wala ñu bàyyi suñuy eh, manifestation yi ñuy organiser ñu fexe ba def fa lu ñaaw a ñaaw a fexe ba am ñu ko jiiñ ci ñun ne nag Ousmane Sonko mooy responsable bi parce que moom mooy président parti ci pexe yooyu lañu ñu nekk subaak guddi subaak ngoon ña nga ca dañuy réunion ba ay 4 heures du matin ci nu ñuy def ci loolu te lu ñu def nag yéeg nañ ko ñoo ngi sant yàlla. moo tax situation bi mu ni mu mele moo tax ñun bind nañu Aly Ngouille Ndiaye bataaxal ndax moom ci boppam dégg ngeen ko en tant que ministre de l'intérieur yor police yor gendarmerie yor euh, lenn ci police ak lenn ci gendarmerie yor euh, euh, renseignement généraux lu ne mu yor ko mu am sañ-sañ taxaw ci rajo menacé ma man Ousmane ko moo tax ñu bind leen bataaxal ñoom gouvernement bi ne leen suñu sécurité yéen yéen a ko war a assuré ni Ablaye Wade defoon ak yéen 2012 ba envoyé la yow Macky Sall ay waa élément wu GIGN ak élément BIP ñu assurer sa sécurité la même chose la ñu réclamer fi mu toll nii. lu ko mooy nag ñoo ngi jël à témoin Sénégal yëpp ak waa bitim réew yëpp ne lu da lu ma dal man Macky Sall mooy responsable sama karaw sax su daanu woon te te coiffeur dagg ko Macky Sall mooy responsable.